mbokk yi euh, euh, programme Prestige TV le clotique di di fidélité à votre télévision régionale. Cette euh, télévision régionale Prestige est fi ci cœur cher. liko waral rek Mohamed ñu koy amalé ci aduna gi yëpp rawatina nak ci série de reportages, dal Omar Fall mi xam ne nag ab taaliba la fonk lool Cheikh Ibra Fall fonk it Cheikhul Khadim ba tax na nag dañuy fas yéene sëkk ak moom waxtaan rek euh, ci anamam wala taxawaayam ci li jëm cak ci wàllub euh, gàmmu gi euh, Serigne Cheikh dañ lay bàyyi rek nga nuyook askan bi xam ne ñoo lay seytaan ginnaaw bi ñu dalalee fii ci sa kër. salaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp di sargal ñëpp di masa coono ñi nga xam ñoo ñu jàppale si gàmm gi. muy suñuy doom suñuy soxla suñuy soxna suñuy am di jàmm suñuy mag suñuy rak mën ñu leen a fay di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla guddal seen fan wéral seen i cër waaw gàmm gi moom dafa nekk loo xam moom sëñ bee ñu ko sas si àdduna te bam ñu ko sesee liñ commencé bariwul mooy ginaar lañ commencé ba tey ji yàlla dogal na ñiy yeew ay nag di gàmm gàmm gi nag utuñu si puukare du dara chibre rek moo fees si ñun waaw ndax sëñ bi moom ku mu waree nga ñëw si moom waaw tey jii yàlla dogal na tiijaan murid ñëpp xaadir ñëpp benn lañ xëy na si tiijaan laa soqi koo mais chibre moo ma xëcc indi ma si boppam ba pare indi ma si wetam waaw ma sant Fall dëkk feek ñoo xam ne tey jii baax nañ lool ku si mel ni sëñ Ndigal Fall suñ sëriñ ak sëñ Assane ak ñëpp ñu fi nekk ñu baax ñi yaatal ma bëgg ma ma mel ni seen i doom ñoom tey mënu ma leen a fay parce que ñu baax lañ ñu ma yëg yaa ngi dégg lépp lu ma nekk si lu baax ñu ngi si du ma naxee jaar sax nu yoon ñun ma woo ma ni ma amal nii ngay jaar baaxu ma jaar si yoon kon maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw gàmm gi nag moom gàmmu Cheikh Rafal la rek waaw di si sant Seydina Mouhamed mi nga xam ne mooy borom bis bi waaw borom bis bi moom bisu ñëpp la tiijaan mu Murit ñëpp mais dañ koo fonk moo tax saa su ne du ñëwee lepp luñ am dinañ ko ci def té am-am bi day yomb ndax ci yeb rek lañ gëm waaw ñu ngi sant ñepp di gëreum ñepp di ñaan yalla mu law waaw ñepp nak ñu ngi ci japp samay rak samay mag samay dom samay xaritu dom ñepp ñepp ma leen malen leen fay di leen ñaanal guddu fan gu and ak wër yalla jappal leen ku si ne li nga bëgg ya ko xam yalla defal lako ci dara jey sayyidina Muhammad waaw. mu nekk lu am solo euh, Serigne Omar euh, wax nga wax bu am solo nee nga nag euh, ca njëlbeen wax nga ca anam yi nga ko doore ba nga ko commencé doore noonu rek bés as bu jot nag ngay gis muy am amélioration xanaa de loolu mooy firndeel ne yëfub Cheikhul Khadim amul tànku ginnaaw. amul tànki ginnaaw jërëjëf sëñ Touba moom amul tànki ginnaaw. Mhm. loo def rek. gis lu leen lu ëpp loolu. Mhm. dañ commencé ba léegi. jébul nekku murit jox suñu bopp seexul xaddiim nekku baay faal dëkk kër pencum sëñ digal faal xol bu rafet rek moo gën a nekk si xol yi ak dox doxin bu rafet ak ak xalaat bu rafet moo tax ñu ngi sant yàlla si loolu te lépp lu nu am tamit bëgg nañ koo bokk ak jaami ndax ay baay faale amul lu ñuy denc suba waaw di sant ñëpp di sant sama mag ji nga xam mooy suma taaw yaay taxaw ñu représenté ñu comme papa ak yaay saa su ne mu ngi ñuy digal lu baax diñ teg si yoon lu baax ñu koy sant di ko gërëm muy Ablaye Fall. di sant moomi mi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay mu nekk yaay si man ak papa si man lépp lu ma nekk ñu ngi siy sonn ay ñoom Moussa ñëpp kenn bàyyul lenn ngir man lépp dañoo teg seen kër ñëw gàmmul ma waaw kon mënuma leen a fay di leen ñaan yàlla yàlla fay leen waaw. Euh, léegi euh, Omar euh, bi nga commencé amal la gàmmu gi fii sa kër di ko def comme ni ko la ni ko sëriñ bi la ko mu la ko digle woon boobu ak léegi daal ci ñaata at la. waaw ah, bi mooy cinquième cinquième année. waaw ah, bañ toxoog léegi. comme sëñ bi nga xam ne moom dañoo joxoon daara ji. di sëtu maam Cheikh Fall. ni kii daal Cheikh Ibrahima booleeg yow. Mhm. moo tax nga jot si. mais tamit am na loo xam ne dëgg dëgg si Cheikh Ibra gis nañ ko si si moom ba tax yàlla teg ñu fii ñu xam ne kon Baye Fall gi dëggu na mu ne damaa bëggoon fii nga xam ne man manquwaay la te cër bii rek laa am sama baay dama sama maam damaa bëggoon yow mi ma koy jox bu ëllëg yee li ma fi buggoon nga koy def muy gàmm ba ma ko jëlee am na ñoo xam dañoo yaakaar ni comme damay yëngu si mbirum business ñii ñu ngi wax damay business ba mu woowee daal di ma ah kii de Cheikh Fall rek moo boole yow moo tax ma joloo mu nekkub cër ma ne ko nag ni nga ko bëggee noonu laa koy defee moo bax ba ba léegi maa ngi fiy gàmm te bu ma njëkkee gàmmu ginaar laa jënd. Mhm. ginaar yi booba fanweeri ginaar la. waaw ba ca euh, année ba ca tegu. année sa tegu mu jëndaat ginaar ak xar. Mhm. ah gis nga dèjà ñëw na année ba sa toolu. ma mhm. commencé rey nag. Ah, kon di sant bu baax. di sant bu baax mu nekk lu am solo Omar sant yàlla warees na la euh, waaye nag biñ la joxee pàkk bi mu nekk nag sas sas la woon ci euh, yow euh, mu nekk nag loo xam ne rek xam naa diisoon na lool ci yow waaye nag mbirum Cheikh Ibra lépp a yomb doo tegee rek daal di dem barke Cheikh Rafal mm-hmm. lépp loo xam ne dinaa ko mbébét di ko def si kër gi mm-hmm. du ma commencé benn birig suñ borom moo koy àggale mm-hmm. kon nga xam ne fii suuf si sedd nu guy di ko sant yàlla. waaw mbirum Cheikh Ibra moom lépp nooy. waaw suñ saa yuñ jugee rek di jëm si lépp lu Cheikh Ibra di jëm si mbirum liggéeyu Cheikh Ibra rek yàlla day yombale lépp. kon dañuy sant bu baax a baax a baax. Euh, ma euh, gàmmu gi nag euh, ana yan anam nga koy doxalee li jëm nag ci wàllu berne. waaw berneel daal dinañ ut nag yaa ngi dégg. ut lépp lu siy dem samay doom muy pàppa Ndiaye muy sàmba muy Sëñ Mor. boisson sax du ma ko jënd boisson yeeg pomme yeeg yëpp ñoo ko sosoo wax dëgg yàlla ak seen i xarit wax dëgg yàlla ñoom mënuma leen a fay ñoom tamit ah. man daal dinaa jënd nag jënd li nga xam ne mooy ànd ak nag bi mais li des yëpp nag wax dëgg yàlla samay doom ñoo koy def tey samay doom ay Baay Faal lañ mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla Euh, mu nekk loo xam ne nag lu am solo la Baye Fall jëf ngir euh, yoonub Cheikhul Khadim mu nekk lu am solo waaye nag euh, Omar bi ñu ñëwee ci kër gi nag gis nañ ne daal am na ñu bëri ñoo xam ne macha allah ñëw nañu dal ci yow mu nekk loo xam ne it lu rafet la. dëgg la samay xarit rek samay am li jàmm waa taax ko ñëpp tëj neen seen i bun falaa juddoo falaa yaroo mais waaw taax ko mais ñëpp bàyyi nañ seen yitte yi sag gàmm du ñëwee. lépp lu ñuy def dañ koy bàyyi muy samay mag samay rek samay am di jàmm ñëpp ak si jàppale ma si gàmm gi duñ def nag lu dul sonn si rek ngir toppatoo gan yi wax dëgg yàlla. Mhm. di leen sant di leen gërëm. Mhm. kon daal euh, li nga wax euh, mooy euh, wone ne. yaa ngi ci yoonub Cheikhul Khadim wéy ci Baye Fall bi nga doon loolu mooy firndeel ne daal ba abadan rek. ba abadan ba dee rek. waaw ah, Cheikh Rafal ba dee rek ba chibre jërëjëf mu nekk lu am solo Omar waaye nag ah, su nekkee ne nag ah, ay kàddu ngërëm su nekkee ne wares nga koo jooyaan ana ñan ngay ngërëm. maa ngi gërëm suma mag ji njëkk Ablaye Fall. waaw taxaw na ma gere na ma parce que sama àdduna defar na si lu bari ndax dañuy wax doo gisul yaay gisoo papa amal conseil si sa mag nekk na mag ju tàng nag yoo xam ni. du lay wax dëgg sax day mer mais après do contrôler dëgg yi da nga gis njariñ di ko sant di ko ñaanal yàlla guddal fanam wéral cëram di ñaanal muumi mi nga xam ne tamit mo doon suma yaay nekk sama lépp di ma toppatoo bugul kenn laal ma si lenn lu ma neex neex na ko toujours du fe bugul dara dal ma si aduna moom dama koy sant di ko gërëm di sant sama Raki, yi muy alsaan muy bayu bàyyiwuma kenn muy mareetu muy Pafal muy nyep ñëpp dañuy taxaw sama gamu jàppale ma ñii dinañ daw uti café ndax Baye Fall laa waaw ndax tey jii mën naan la si Tidiane laa yeewoo mais Tidiane ak muy yëpp a yem yàlla daal moo ma xiir si Baye Fall gi Cheikh Fall woo ma mu wuyu si ko waaw. te eh, bi nga ko wuyosee ba léegi daal. waaw gisuma si gisuma si benn gaañ si kaw si kanam rek. bak Cheikh Fall di ñaanal ñëpp nag ñu am jàmm. waaw di ñaanal sama mag yi yàlla jàppale leen sutura leen ba nga xam ni yéene bi ñu am yàlla na leen ko yàlla fay parce que guddug Seydina Muhammad ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw di la jàppale di la toppatoo si gani yaa ngi dégg kon am naa seen gërëm moo tax yàlla na leen yàlla fay mënuma leen a fay wax dëgg yàlla. Euh, mu ngoog euh, Omar Fall euh, ci kàddu yu am solo yooyu biñ la gisee sax maa ngi naan ah, ndax kii lañ ma booleel wala déet ci simplicité bi lii mooy wane nag Baye Fall bi nga doon yaa ngi koy jëmmal. di sama waa ji muy seega ñaa ku baax la wax dëgg yàlla. Mm-hmm. moom yitteem yëpp la bàyyi. waaw moom ku baax la. lépp luy seral nit xol bi wax dëgg yàlla participé na ko indi ko kon ñoom ñëpp muy xaali muy ñi nga ñëpp sonn nañ si man. di leen sant di leen gërëm waa garage. ñëpp wuy si nañ ma wax dëgg yàlla. di sant sama jarbaade ñëpp ñëpp a sonn si affaire bi ndax xam naa ne daal. comme commencement damaa commencé mais ñooy àggale lépp wax dëgg yàlla. Mhm. moo tax mënuma leen a fay ñoom ñëpp. ki nga xam ne mooy Baye Mbaye mi ma jàkkaarloo wax dëgg yàlla ba ma fi soog dikk. aw ma sama dëkkandoo yi bii. Mhm. aw ma courant aw ma ndox lépp si këram laa ko branché mu nekk Baye Fall boo xam daa mel ni Chibra ñu boole. Mhm. di sant sëñ Assane mi nga xam ne moo nekk si penc mi nekk nit ku baax. waaw di ko sant di ñaan yàlla yàlla guddal fanam wéral cëram oyof na oyof goo xam ni maara day taal yi waaw nit ku nit ku baax day day boole rek di jubóole waaw di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla guddal fanam ak xayitam yëpp waaw kenn mënu koo fay moom tamit waaw

Euh, ñuy béy wàllu am solo télé bi seen télé la yéen askanu Thiès yéen ko moom. sant mhm. Dunya parce que nekk na nit koo xam ni. gis nañ ni muy def si réew mi parce que parfois a gis nit koo xam ni. day faj aajo yi doomu aadama yi. nekk nit koo xam nit ku yaatu la kuy jàppale ay doomu aadama. di ñaan yàlla telem bi yàlla gën koo yokk li muy def si réew mi. ak mbaax gi ñëpp gis nañ ko. te képp kuy def lu baax rek lu baax rek ngay am si àdduna. di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla dàqal ko cat. ak làmmiñ lépp loo xam ni mbébét na ko yàlla na ko yàlla defal si bàkki Seydina Muhammad boom bis bii si bàkki Cheikh te si kaw si kanam rek bu mu tiit dara lépp ay baax lépp lu lu mu yaakaar di ko mbébét bu mu tiit dara day am direct loolu parce que ku baax rek si loo nekk rek suñ borom euh, jàppale la mu ngoog euh, ku baax rek euh, ci loo tee rek borom bi jàppale la ci mu ngoog mu nekkoon nag comme ni ko waxee sànq rek série de reportage yi xam ne dañ ko jagleel këru diine yi ci Thiès li jëm nag ci wàllub euh, Mawlud édition 2020 ñu ñëwoon nag fii ci kër Cheikh ci suñu baay Fall bu jàmbaar bi euh, di Omar Fall Omar ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax di gërëm dis di sant sa mbokk baay Fall yi ak sa sëriñ yëpp euh, di leen wax ne nag àdduna nii la béy waar béy wàllu am solo rek ci. li xam ne moom la cheikhul xadim tëral wax nga ko sànq rek euh, yëfu cheikhul xadim amul tànk gannaaw kanam rek jëm kanam euh, te nag ñëpp xam nañ ko euh, di remercier aussi Moussa mbay mi xam ne moo àndoon ak man tey ci reportage bi mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon